tey yàlla dafa def ne ni ñu ñëw fekk fi loo xam lu am solo lu waral ndogali. waaw ndogoli de yàggoon nañ sax di ko def mais ren xëy na dafa gën a kii rek te dañ ko yéexas dafa xaw sax yéex parce que programme bi ñu ko tëraloon am na yu fi jotoon na jaar yu bëri yoo xamante ne mooy ñu ne daal nañ xaar ba heure bi xam nga ñu doo ko def mooy loolu. mais dama xam ne ni jamono bi yëkkati ndaw yomb. Mhm. yéen lan mooy seen secret bu Serigne Ndiaye jugee ñëpp jug. waaw mais Serigne Ndiaye boo déggee saa yu wax lu muy wax doomu Medina la dëgg la yaayam njaafal la dëkk mais Serigne Ndiaye njaaf fii Medina fii la papam am base fii la juddoo yaroo fi màggee fi kon tey jii waa Ndakaaru dofuñu ñoom tey jii dañoo bëgg koo xamante ni day yóbbu couleur Medina di ko te Serigne saa yu génnee suy ñëw porte drapeau Medina buy ñëw da leen di indaale ndam ci côté bépp nag lim fi def daaw ci côté lutte simple bi yombul bi champion amee ba tey. yombul loolu am Sénégal muy ñu teg drapeau chef de l'État nga jël ëppoon jël euh, par individuel jël par équipe mu ngi ko jëloon à 2016 mook Fatick loolu mi ngi xew woon fële Kaffrine moom moo ko jëloon ak ñoom seeti jaan ñaan ñoom la àndaloon bii mooy deux fois muy jël drapeau chef de l'État Serigne Ndiaye dëgg yàlla. waaw li nga jëm ci le 14 mai moom moo ëmb seen senior. waaw loolu di ñaan yàlla defal ñu ci jàmm may ñu ndam lu sedd rek ci barke yonent bi te xam naa dinañ ci am ndam lu sedd ci kàttanu yàlla. waa ji daal li ma koy wax mooy li neex si géew bi si kàttanu suñu borom moom bu taxawee dëggal boppam damay wax de bu taxawee dëggal boppam incha allahu rabbi si kàttanu yàlla bu dee dawul du ñu bëre minute si kàttanu yàlla suñu borom. Serigne Ndiaye du mbër yi nga xamante ni da nga fay nekk ay leewaatoo jëmale suba non non xale la yabee wuñ ko sax yabuñu sax ñëw fii taxaw di leewaatoo ëmb seen di ñëw jëm fu kenn xamul day ñëw def li muy war a def dem yoonam waaw. mais mu bëree franc bëree ko moom ak Cobra maa noonu ngeen war a ñëwee Serigne Ndiaye boo xoolee neuf combats yi am yëpp arbitre bu soufflé yow jaam sa jàmm jeex na lim moom lay jëli day dox sa kaw day dox di ñëw daan na nag dox dox boo xam da daan ñëw fuggu zone sa kaw boo xoolee ni mu ñàkkee combat mook Franc dafa yéeg Franc lu bëri ba Franc yéeg ci kaw saako yi lieu que mu reculer waat xëccaat ko si géew mais mu topp Franc ba Franc sàcc ko mais nag loolu travaillé nañ ko macha allah dañ na te ëmma maal ko fii de bu affaire yi méttee bu dawul. day soobu day soobu day ñëw rek ñun xam nañ ko bu baax mu ngi nax Serigne Ndiaye naan ko ay bu ñu jàmmaarloowee bul daw song mais moom parewul sax pour taxaw jàmmaarloog Serigne Ndiaye loolu na ko dugal si xelam bu baax ñun xam nañ xam nañ ko bu baax parewul sax pour jàmmaarloog Serigne Ndiaye dafay nax dafa bëgg a nax Serigne bu Serigne Ndiaye yëkkatee loxoom mu daw jóyaloog moom mais bu ñëwee dana fekk bëre boo xamante ne day yombal boppam rek mooy comme li ma wax ak su nangul xaar foofu kur feñi day ñëw jébbalu mais dama gis ne moom bu bu bu ñëwee ak mëninam. Mhm. comme li nga wax ni combat bi du yàgg ay une minute deux minutes lay yem. incha allah man loolu laa bëgg. noonu nga daanee franc. bëgg non franc non li simple la. waaw xam nga dama dal si kawam macha allah parce que dama ko toog étudier ko liir ko xam naa ne kii du mbër booy taxaw di ko bàyyi mu lay manipuler. boo nekkee xale nekk si yoon am doole macha allah waroo fi ñëw di leewaatoo di yàggal amateur yi amateur yi bëgguñu mbër buy ne fii di leewaatoo jëmale soba ñu bëgg xeex bëre. moom bu ñëwee pour ñu xeex wallahi dinañ bëre làmb ju dàq Sénégal làmb ju gën a neex Sénégal dinañ ko bëre ñu nag Eumeu Sène junior mais nag xaw ma nag mu ñëw Serigne Ndiaye di xeex moom mu daw xeex xam nga mi ngi naan Serigne lu metti mais xam nga encaissé na fi coup bu ne fii laa la ko waxee de si si seen siti yi Lutte ak Sénégo bis bu jëlee ko Serigne Ndiaye dina tal leneen lu dul taxaw naan day jàmmaarloog Serigne Ndiaye moom Eumeu seen junior. wàllu mystique bi fa non ñun mystique moom wax dëgg fa yàlla ñun luñ luñ gën a gëm ko mooy entraînement dinañ ñaan lu nag dëgg la ci la bokk mais li priorité mystique dëgg mooy entraînement ba liggéey te macha allah boo soo xoolee Serigne Ndiaye xam sa xel dal na liggéey na ni mu war a liggéey macha allah barki maam Serap Fall liggéey na jox na ko akam ci côté bépp nag boo xoolee Serigne Ndiaye mën nañ toog fi une semaine yàlla yàlla xam ne duñ tegante bët. parce que heure bi muy yeewu di dem entraînement 6 heures du matin heure boobu laay wàcc man pour ñëw tëdd nelaw su ma nelawee 10 heures 11 ma yeewu dem bu ma ñëwee balaa maa wàcc pour ñu bisi fii 4 heures matin fekk naa ko nelaw na mën nañ def une semaine yàlla téléphone la ñuy déggante wala whatsapp du ma gis mooy loolu yaa ma gën a xam. père dañ lay nuyu rek ziar la dalal la ginnaaw bi ñu la baaloo ak si weeru koor bi ñu nekk. waaye maa leen di baal man di ñaan yàlla baal ñu ñëpp yàlla ñaan yàlla nango suñuy ñaan ñanga suñuy julli yëpp ah yàlla jéggal ñu bépp bakkaar defal ñuy xéewal ba tabaar fakallaahu ah ñu sant yàlla bu baax ah, ñu ànd ndax yéen ngeen fekk rek gis uh, teraanga wi mu def. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee léegi si njëlbeen bi rek. Mm-hmm. Uh, uh, jël nit ki moom. Mm-hmm. jox ko mu ndogu. ngeen li si nekk dafa bari. waaw mu am xalaat bu rafet boobu xalaat bi moom xalaatam dafa mas di rafet. waaw bu mu xalaat bu rafet rek lay def di ko jëfee. voilà Serigne Ndiaye témoignage ñu ngi ñu mën a wax rek tuuti rek si moom. waaw li ñu moo doon wax si moom mooy xel mi xol bi rafetaay bi daal foo ko àpp ëpp na ko waaw parce que lii. Euh, suma gis daal si mbër. mbër waaw ma mosuma gis si mbër. Mhm. parce que man ma mosumay ñëw. Mhm. mbër tëbësku jot. Mhm. muy ne ma dama père sa xar a ah. moom Serigne da koy def. moom moo ma ko mosal defal laa wax. tëbësku jot mu xalaat baayam. ne ma père ñii di ma xar ma ñëw rek ñii di wax xar ma sa sa xar a ngoog ak perkat li mu def si làmb ak perkat li mu tàggat ci ay mbër bañ dégg daal yëpp li ma la wax kat nag dina la defal yaa xam li la wax maa la moom c'est moom laa gis mbër mu ñëw nee ma feer te bés kee ngi donc c'est la première fois waaw hmm? tawaat ma xel mi ak bi foo ko app na foofu tamit mu tamit jël avance jox ko avance mhm. mu indi ma saako cee baax diwliñ daal di ne nekk maire sa sa kii angu ba lii tamit ah maa ngi koy soo gis si si si si bu ñu ko defal. voilà kon nag nga xam ne kii ku baax la ah, ku xolam rafet la ku xel mi di rafet la waaw. waaw moom da day bokko li mu yore moom da koy bokkoo te loolu dafa am solo voilà. voilà xam nga adversaire bi moo war a xaw ma ko nag wax dëgg yàlla. Eumeu Sène senior. xaw ma ko nag damay. loolu mbaa woor na père. ah loolu mbaa wóor na. ah loolu ñoom mbaa ñoom xamante nañu mooy l'essentiel moom xam na ko. no xam nga ku ne Fass Ndakaaru ne écurie bu mag ngeen am combat capital tey Serigne Ndiaye bokk ci relève yi nga xamante ni tey ñoom la gars yaakaar mu am combat bu toll nii yaakaar na ne tey au moins war ngeen war a mun a visionner au moins xam si moom as parce que mbër mbër la am de non xool image ak xam mbër mi yow da ma xam nga mbër mi ma ne la xaw ma ko fu mu ah. <laughs> du may du may seetaan combat yu ndaw yi très rarement lay seetaan euh, télévision yi hmm. bëri na ak ñoom général Malika combat yu métti de. waaw waaw ku mu munti munti bëri rek mbër moom ñaar la rek mbër mi daal lii mooy mëninam yow tamit si sa mënin tamit ngay ñëw daal di indi xool ka ngay fexe ba daan ko si. yan waaw. ñu ñoo leen jaboote mais li mu def daal am nañ ci fierté képp kuy kilifaam képp ku axalu làmb wala ngay supporter écurie Fass sa sedd na ci lii. parce que ñi ko war a def nag bari na wax kenn du ko yërëm mais lii mu def tey jii Sénégal gépp kontaan nañ ci kontaan nañ ci moo xam li mu bëgg ci boppam. bëgg ko ci écurie Fass na ko suñu borom defal ci kàttanu yàlla combat bi mu jublu nag ñu ñaan suñu borom defal ko ci ndam lu kawe njortam ndam lu kawe njort ci écurie Fass loolu la ñu ñaan daal yàlla nañu ko yàlla defal ci weeru tedd wi jërëjëf xam naa mbër bi mu war a parce que jege ma doom la ci man waaw ki mu war a bëreel maag papaam ñoo bokk ndey xam nga wax kenn du ko yërëm bañ ko fi joxe Serigne Ndiaye numéro 2 dama na ko bul jël ñu jox ko fi Baara Ndiaye nu mu tudd Cheikh Serigne Ndiaye mi sama témoin ma ne ko bëgg naa bu làmb doon fay ay milliards bu mu yàgg ba nga bëri écurie kenn ku nekk géejawaay nag na bëri écurie Fass ba mu des yow. xam naa nag ah xaj na naw na dooleem wala am na lu mu gis waaye damay ñaan ci kàttanu yàlla mii maye Serigne Ndiaye 2 yàlla na daan xale bi ci kàttanu yàlla yonent bi naa ko suñu borom dis ko yàlla yonent Serigne Touba. loolu père Mbadou andi li sport la rek ñoom dañuy liggéey waaye ragal péete day xëy a wërsëg tey sama gagne sama taraanga ci Serigne Ndiaye 2 la ne. ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ndam lu kawe njortu si nag Sénégal sama xol laa ko tibb yàlla na ko yàlla def amu ci lu may làq amu ci lu may ragal su lamb ji paasee nag doom la na bu paasee bu lamb ji paasee ma jur ko waaye fi mu nekk nii mbër mi laa bëgg fii ci ginnaaw ba lamb ji sottee jàmm ñaan naa yàlla daal bépp combat bu ñu dégmal fi mu nekk nii ci année bii yàlla na ci yàlla may ndam du Serigne Ndiaye de kese rek. Lac Rose war naa laal. Forza war naa laal Gris Bordeaux war naa laal ba caatu faas ak ñeneen ñi amul combat mais maa ngi ñaan borom bu dee di séddale rek at mi kenn yàlla buñ kenn jiitu ci kàttanu yàlla. maa lay jërëjëf. Serigne Ndiaye fi woote woote fi ndogu. ngeen nekk ay kilifa ñëw teew. seen gis-gis ci euh, nga lii ndogu la. mais moom dafa yàgg def social. social mooy lan. Euh, moom dafa nekk leader. leader mooy. le seul lutteur bi nga xam ne dafay ñëw entraînement jënd ay ay pakkatu ndox pour pour les lutteurs di ko naan mbër day gaañu moom mooy dem mooy dem pharmacie jënd élastoplace jënd ay bagages ñëw indi ko loolu un leader rek moo koy def man moom dafa am leen loo xam ne dafa dafa am ñëpp xamal nañ ma ne Ndiaye sama doom la yaayam dénk ma ko papaam dénk ma ko moom it mu koy jëfee di ma teral koor day jot mu indil ma saako jëpp indil ma ay bagage loolu ku la ko defal lu ma mën si moom naa ko def si moom waaw. bi mu jëm. waaw combat bi mu jëm ñun duñ ci wax sax lu bari dañuy ñaan yàlla ni xolam mel yàlla may ko ndam ndam boobu ndax moom xol bu rafet la yore ba koy ñaan yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guy si barke yonte yàlla Muhammad nga. franchement xale bu yaru xale bu ma respecté la xale bu baax la. ñu ngi lay jaajëfal. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan à travers les différentes plateformes baaluwaat ñëpp ak rek baalaat ñëpp ak tey nag Serigne Ndiaye moo fi woote ndogu ndogu bi nag yaakaar naa tey moom riis na paa yi kontaan nañ waaye mbër yi nañ ñi woo rek ñu wooru mbër yi moom ku ne xam na ne am na ñoo xamante ne moom waaw yaa gën a xam mais mbër ñu ngi lay nuyu xam nga ñu nuyu suñu waa maintenant gi mhm. a baax daal mhm. suma waa dëkk waa Njaawa séeréer mhm. Njaawa Escale Njaawa Njaawa Soos yëpp di nuyu waa ngir Fass yëpp suma baab Abbas Ndoye suma baab Tafage suma nga père Kati Soose xam nga père Ibrahima Mbaye xam nga kam te nii mooy Kanté Bodian suma coach waa xam nga di nuyu sama gars yi may ku su nii xam nga Baye Abdou Kabandoski Zal xam nga Bada Ousseynou xam nga Mor Lamine Obala xam nga Sopé Kalas sama mag petit xam nga di nuyu staff yëpp daal di ñëpp di nuyu mille bi tamit di nuyu waa Médina yëpp di nuyu waa golf yi waa Ndar yi Marieur yi suñu Pape Fallou Fall xam nga Mara maa ngi baax di bu baax a baax daal xam nga di waa Gambie yi suñu Pape Riyal Aziz suñu Pape waa Kolda waa Guinée Bissau yi maa waa dëkk yëpp daal di koor gi koor bu baax ñu si ko bu baax te xaw ma sax mooy wóor isaan isaan ñu si war wàcc. waaw ah. ah. ñu si war wàcc daal. war wàcc waaw war ci seen mbéyam. lu la motivé ba nga def li nga xamante ne yaakaar naa ne ñëpp a ko salué. ñëpp a si rafetlu paa yi dama leen jël mais vraiment da ngay gis ne seen xol dafa sedd ba mënuñu sax exprimer. li nga xamante ne moom la ñuy ressentir. waaw paa yi amuñu seen fay. Mhm. comme li ñuy wax sax amuñu seen fay paa yi quoi. Mhm. état amuñu seen fay maanaam ñun tey sport bi ñu def ñun tey. damaa ne ku si mel ni tey ak dirigeant yi quatre heures ñu ngi entraînement wala cinq heures ñu ngi entraînement ñun tey millions yi ñoo koy lekk mhm. donc bu ñu ci am 10 pour cent yi lañuy séddoo mooy loolu mhm. donc li mu def rek mooy lu mu gën a rek xam ne suñu ay waajur mhm. temps ba ñu passé yëpp yàlla dafa leen jàmm di nuyu suma nawle mbër fi nekk Fass yëpp nag di nuyu loxo nuyoo daal di leen siyaar bu baax salaam képp ku mu combattre am maa ñaan yàlla dafa leen ndam ak suñu Tuubaa Serigne Ndiaye ku koy xelal geste yi def perkat yi wax na fi wax joo ju rëy joo xamante ni tey ça doit au vu au sous tout le monde mm. mu ne ba mu nekkee kat ba tey mm. mbër mosul yëkkati xaru tabaski jox ko muy ñoom père Ibrahima Mbaye ba ci père bi toog ni mm. nee ba si weeru koor bi euh, jël nga ay teranga defal leen ko te loolu yaakaar naa ne yow kese nekkoo mbër ci équipe bi waaye yow kese aussi nekkoo mbër Sénégal ku lay xelal waaw mais loolu a baax baa daal di suñu ba dama ko nuyu baax di ko ñaanal jàmm salaam xam nga ñaan suma yaay tam baax a baax na vraiment mhm. suma gars yi suma staff seen fay tamit parce lu ma dugg leen soo ba nga jot ñu si xam nga di nuyu kamante nag spécialement mooy Jamil mhm, Jama Nourla wax tamit xam nga baax mhm. waa tamit xam bu baax daal ci staff bi xam nga rek man mënuma dara dara dañ maa defal ma def bàyyi ma daal

may sant encore une fois ki am te ne mooy adjoint maire jëm ñaajo Adama Mbaye ma ngay sant bu baax dëgg que gis naa taxaw bu baax a baax a xam nga autorité nekk autorité yi nekk nag yëpp nag ku si mel le maire xam nga Bam Fall Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne mooy Seydou xam nga suñu Pape Siri Samb xam nga ak ki nga xamante ne ni mooy Père Yves Diaw ba koy gisoon caam tam ñu ngi koy woo baax bi tamit wax dëgg yàlla di nuyu hmm? di nuyu sama gars yi baax a baax tamit wax di woo ñëpp ci hmm. euh, loo xam ci Eumeu non Eumeu Sène sax li ma li ma tàmm di wax rek parce que tamit si làmb du ma bëri yaafus. Mhm. jàmbaar lay champion lay bëreel. Mhm. wax dëgg yàlla xam di ko nuyu tamit di ko baalu àq mhm. di ko baalu àq ba si koor di ko jaar bu baax a baax daal. waaye di xam ne champion lay bëri mbër lay bëreel jàmbaar lay bëreel wax dëgg yàlla mais ñun. dafa fu ñu teg suñu bët. ànd ay kilifa ñu jàppale duñu tàggat. donc adversaire lu mu danger danger lu rek ñun ñoo koy coore mais du grâce ñun waaw lu ñuy xaar mooy arbitre sifflé si kàttanu yàlla mu baax mi def ñu naan def rek moo attaqué ko ne gagné nekk ci leneen daaw nga def ci làmb lu Sénégal yëpp di waxtaanee ba tey ñëw tëj lutte simple bi tëj ko rab ren nga ñëw def benn sortie ñàkk ñëw toogaat jël sarax nga doon def wala lan nga doon def jël sarax mooy ah xam nga ñu am nañu amateur yi ñi ñii doon làmb ne ne Serigne toj ta la doon def dafa ñëw bëre benn ses benn mbapat daanu ñëw toog waaw non moom moom moom sama bopp moom sama bopp xam nga làmb ak loolu ñoo ànd. làmb joxaaj ay compétiteur lañ loolu des na maa ngi concentré sama combat ñu ne yàlla dafa ñu ndam lu rëy rek. lool looy le dernier mot rek lan lay nekk. waaw dernier mot di sant ñi may jàppale ñëpp nag. wax dëgg yàlla. parce que ñoo ngi boo xam ne daf ñoo ñor. suma mère dëkk maa ngi sant ba dëgg gërëm ak yaay. d'accord di suma yaay Girène bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam. encore une fois la l'adjoint maire Guédiawaye Adama mbay macha allah macha spécial su pap Yves Diaw le directeur DG Bara Ndiaye mhm. maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax a baax autorité maintenant yëpp maa ngi woo ci combat bi mhm. mille pour cent bi mhm. nga sama ma entraîneur yëpp yàlla yàlla defal jàmm loo koy yóbbante ama seen ama seen moom saa yi instant wax mu fi nekk jarul muy bëri le ba pare yàlla le 21 li ma ko wax ba am sifflet fi mu taxaw dinaa ko fekk ci kattan yàlla mbaaxam. monsieur ñi ko attaqué yëpp delloon ginnaaw de. waaw ñoom ñi ko attaqué bokkul saa waay man sama yoon laa nekk de incha allah képp ku tax sama yoon ci kattan yàlla mbaaxam. na nee na benn clé nga am. ko. nee na benn clé nga am te xam na ko. waaw loolu garaawul loolu dara kon dafa desee xam dafa il a rien compris kon. Hmm. waaw mbër benn clé boobu téye ko benn clé boobu laay nag incha allah rabi kële boobu noonu loolu si waroon tamit. Mhm, incha allah. ma jël la interview nga ne ma réveil musculaire laay def loolu obligatoire la. est xam dëgg li ma nekkoon ba léegi maa ngi ci. boobu taxaw ci kat mu taxaw mu fekk ko fa boobu sibilee fu mu taxaw mu fekk ko fa incha allah rabbi sama yoon laa nekk de. loolu est-ce que loolu est-ce que say entraîneur sax dina ne si bàyyi. dëggalu ma xanaa. waaw dama nekk ay coach ñu may liggéeyal may tàggat sama boobu di entraîner nekk ci li mu war a nekk. afu ma teg sama bët ci làmb. Mm. nee ma mos ngeen laale. waaw loolu da koy wax rek mais mos nañ laale ak bi. cinq Bobar. nee na da doon wër si loolu a jotoon rek. la jotoon. nee na ouverture a jotoon rek mu ñëwoon noonu doon oyofal noonu. ouverture mu yóbbu ba léegi ñëwaatul de. Hmm. ba léegi ñëwaatul ay ay ouverture ouverture jot na fi événement jot na fi lu ne jot na fi de. Hmm. Hmm. te gars yi ba léegi ñu ngi ràññee. journée 1 million 600 journée 2 millions lenn mu loxo may da ñëw mbapat ñëw lu métti mbër nga ko mooy sa métier. da ngay ñëw dugg si mbapat bi. mais ouverture yooyu da rek. bàyyi sa xel mi ngay fooy waay. boobu nekkul ci dara mbëri mu mm. am na lu <laughs> bu dégg naa dégg naa ko. <laughs> borom baax la yëgul lu xew. Ah. ndel bi na yaatu rek bu jur combat ba. Mm. naa daan raay sa ndel bi. yow tamit na noo ko de. Ah. ay ngëndi ndel lay jam. yaa ah. ilaa ay ngëndi ndel lay jam. pour yow. ah loolu Baye Fall la quoi. Mm. Baye Fall ma koy ziar bu ñu ngi lay bëgg. waaw mais di kontaan encore une bu baax a baax daal. côté mobilisation. waaw instant yii maintenant moom macha allah. Hmm. waa golf yi. Hmm. zan yaa ma gën a xam waa golf yi. Hmm. xam ñoom tamit mooy waa caaro yi. bu baax a baax a baax a baax a baax ñu leen xaar waa Diourbel. waa Kër Cheikh Diourbel ban. ah yéen ma dem Diourbel daaw. nekk fa vendredi samedi am fa ay mbokk. nga naan Diourbel man. nga Diourbel moom Diourbel moom bu bu bu li ñu naan jine bu bu nekkee 10. su ma jëloon 6 mu jël 4. kon du am dara de. Diourbel waaw. Ah. dégg nga xam ne yow nag yow nag yaa ngi yaa ngi minimiser Eumeu Sène de. dégg nga ma bu nekkee 10. Hmm. dama jël 6 wala 7 bàyyi ko ak 3 yi. mbaa duñ la pëtaxal foofu. te 3 ay 3 kon ñetti kon la fa xam ne Diourbel hmm. ah. ah, moom kenn xamu ko Diourbel moom. kenn xamu ko Diourbel. ñu